asalaamaaleykum mbokk téléspectateur Aynou Mady TV tabaarakallahu ñu ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk rek ci àddina comme nañ ko waxee woon ñu ngi fii tey ci Tivaouane tabaarakallahu fii ñu nekk nag mooy kër Serigne Mansour si borom daara yi tabaarakallahu di doom ci Serigne Babacar si bu Cheikh El Hadj Malick taala anhu xale yii nag di njaboot Serigne Habib si ibnu Alhaji Abdoulaye si Dabakh ñu ñëw vacances ci moom war a nag jeexal seen vacances mu ne leen nag faaw ngeen dem ziare seen maam yu baax yi topp seen i jeexital fa tabarakallahu bi ñu ñëwee nag ñu fekk fi ki nga xam ni ku ko gis rek sa xel ci sëñ Mansour lay lay dellu ku ko gis sa xel ci kër Seexul Xaaji maag lay dellu ñu koy wax alaaji Maodo malik tabarakallahu Jóob bëgg Maodo ñu koy wax maa bëgg Maodo yaakaar naa ku nekk xam nga ko ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy nuyu di ko di nuyu mboolem ñuy fekk ci rawdu bi yëpp Hadj musa si ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara eh, Hadj malik set yi ñoo ñoo ñëw seen maam Serigne Mansour Serigne Habib bëgg xale yi xam jeexitalu mag mi bu bu ëllëgee ñu mën a topp seeni tànk fa tabaarakallaa ñu bëggoon nag nga wax ñu kan mooy Serigne Mansour borom daara yi. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من بر الأولياء وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين ورضي الله عن شيخنا وخطوتنا وإمامنا أبي العباس شيخ عمد التجاني الشريف ورضوان الله على جميع خلفائه وتلاميذه wa ahra sayidi alhaaji malik si wa ayaalihi eh, asalaamaaleykum saydi eh, abdou fati ñang xam naa la yonent bi waxoon ba jibril ñëwee di ko laaj mbiri lislaam mu ni ko xam naa déet ki ñuy laaj di gën a xam ki kay laaj waaye yow mi may laaj yaa ma gën a xam li nga may laaj ndax Seydil Hadji Malick mooy sa maam direct te it foowoo e, e, ndono googu moo waral lii tabaarakallaa kon ñu ngi lay delloo nuyoo ah, ngeen ñëw nag ci daara ji nga xam ni daara yi ñëpp la mi e, daara yi Cheikh Seydou Mamadou Mansour ngeen génne ci rew doom ñun ñii du ñuy ay njaboot ah bu ñu ñaanal bokk nekk bokk njaboot tabaarakallaahu ndax nitu yalla nak bari gop diiw la noko jige rek ngay niine eh, ñu bëgg ci niin ci sëñ Mansour ci bëri go yee bokk rawatina Seydil Hadji ma mi nga xamni nak koko mo formé bari goy euh tabaarakallaahu mu doon daaray sëñ Mansour mu nekkon ci ñun ñepp ci lañu ñu génne am jangale mit min nanu ko ndax bokk nañ ci ñimu jangal jàngal barki démb damay nit ben xamni Mansour ba dem na ba dem na ba xam ni yitte yi ak màgge gi ak wéradi gi ak responsabilité gi bari na ci loxoom ba mënatu la génn ci daara ji jàng fi mu toog la daa toog bu jullee suba ba wérdi ba wasi fa def ay awraatam ba lay jog ñu indil ko kafe gi njaase gayee indi kafe gi wala Baye na Diouf bu ñu indee kafe gi foofa la nu koy fekk man foofa la ma jàngale téere si daa ji sëñ Babacar yi ma ci jàng mooy benn bayit nag ci xadin xati aat مديكو لير تسانتيك اكول بي ген مصطفى سي مسترشدين بو سي احمد تيجان سي اك سيرين منصور سي بو سي احمد تيجان دون ني بوك بوك اكول با ني مون ني نيكور سوني ميتر ا وسينو جيتي اي خمغا خمغا كوم ديت الامام مو مو نيك ديريكتور جنرال مو خير رك دا ايا لا امي لمت السليمه وعقله تعلق في فيث فما هو سامعه Serigne Moustapha xool ko ñëw ni ko mën a firi way ku ko ci firi ñii nag ca ca fa eh, eh, taalaqa fii faysin ja ca la ñu bari daanoo <laughs> xam nga alfawsu day firi tuuf maanaam kontante waaw am li nga bëgg waaw waaw victoire mooy firi fawsu eh, mu ne ayala imi yow mi may yedd lu ci sopp gi ma sopp Seexna Tijaani lumta salimi salima yaa ngi eh, eh, yedd eh, lumta yaa ngi yedd a salima salima gars yi daan na ci salima mooy ku jaan mat xam nga boo yedd ku jaan matt du la déglu xam nga téere mag ñi dañ koy wax ku jaan matt sam xel dem ci dee ba ngay dund ak ba ngay dee lépp sam xel dem ci dee loolu lañ ko daa jiinal ngay tëgg ndënd ma ca kaw ga ñuy dëgg loolu ñu naa ah, jaan maatat na nit loolu la géwél biy tëgg ku jaan mat sam xel dem ci dee ba ngay dund ak ba ngay dee lépp sam xel dem ci dee kàddu googu nag la sa maam Cheikh Seydi Aboubacar way ni ayaa laa imi yow waaw lim lum ta yaa ngi yedd salima mm-hmm. ku jaan mat wa aqluhu mm-hmm. te am xelam te mbir moom xelam te àllaqa mi nga aju fii fay sin ci dee fay sin <laughs> boobu dee lay firi waaw ma firi ko par daal di bind la almawtu waaw taxta xatti ci suufu Serigne Moustapha ñëw rek ni tël ni waaw ni man fasara haadal qudayt ku ko firi ci yéen gaa ñi xoolante Assane Ndiaye rahmatullahi alayhi daane Maodo Diop mii la mu ne ma lii de xaw ma foo ko jàngale waaye majalis la ma ne ko sa bàyyi man sóora ma ko jàngal waaw waaw waaw foofa nag ustaz usina ji daani ma ni école bi dëgg la waaye di leen dem ci majalis bi waaw man ka seigne man de ma jaay yore fii mo gën a tudd ma Majalis fañu ko joxe café dal muy naan fa la nu koy fekk noonu di jangal lu bari muy nit ko xamni daara rek ko safoon lolo tax ku bëgg abib Sy nak hmm. ku bëgg abib Sy euh, euh, mam fat faat fat ba mi la lool bëgg na doomi Alaaji Abdou yeb way abib Sy ndax mos may dégg man abib Sy luma ko bëgg waxuma xam-xam way dafa am fayda waaw sax bëggon na continuer barki dem ba ci kër ga hmm. ba mu jox ma talifi Seydi haji mali yeb ndaysan non la yëkëté diwan bi jox mako tabarakallah nima ni ma nos ko yaa ngoog jëlal tubaarakallah eh, boole ko alal ju bari eh, kon xalé yi yal na ngeen tekki amin wax leen amin yal na ngeen tekki ki ngeen siyaar ci daara rek moko ko ak no mel na mel bëgg a seigne Mansour bëgg na la ndax mom dañ da tegale añam mhm. eh, ndékkeem ak añam ak réram mu mu diko lek bu xasee xey dem ci daara ci ndékkeegul bu ndékki li ñu du ko faalé mhm. loo teg rek loo euh, bu jeex mu song beneen bañ ne ko añ bi ñëw na mu ne baal tegal naanu ñu fànn bu ñëw bay foofu nag mu wàcc julliti si teg seen wàcc ñu tegale añ ba ak ba dugal ko ci néegam tàngal waaw tàngal ndeysaan loolu la daan def ndax bëgg daara fanweeri at ak juróom def na ko noonu ci daara tabaarakallaahu moom Cheikh Seydi duma Mansour kon nag bu ngeen ñëwee di ay gone jaar ci rakkam abib mi nga xam ne yàlla allahuma la adur yal na yàlla ah, wattul nu ko yal na yegg fa mag ña yeggoon fa mag ña yegg amiin yal na fay yegg am nañ ci moom yaakaar ci wàllu xam-xam ak wàllu fayda ak wàllu it tubaarakallaahu doomu soxna xam-xam la koy nawe ak it xam sa bopp moom xam na boppam am na xam-xam yal na ko yàlla aar tubaarakallaahu lii ngeen def nag lii li li lii la ñuy wax arfaan lii lu daje la yonent bi daa bàyyi ko madinatu munawara ànd ak aboubacarin sadiq ne saraax bi mu a ah, ba dem kër abo ayoba ansaar mu fëkk bagage yi ma ko gën a xam sa maama ko taalif jël bagage yi yóbbu kër abo ayoba mu àgg eh, daal wane ndax nit la nag yonent la waaye nit la ni daa bëgg a naan mu ni ges aboubacar sa eh, sadiq ni ko dama bëgg ndox pour naan mus ndox Aboubacar wañ ko wax ko abu abu ayaba ansaar ki leen di ganale abu ayaba ni gees benn benn si góor ni ko najeex yaa najeex ya xam nga najeex moo firi najaxa mucc na hmm. di nga gis ko def ak seme sax hmm. boo ko amee ñu ne najaxa najaxtu mucc naa hmm. najaxa najaxtu ah, eh, yaa najaxu dana mucc baa nga dem ak sax ca tasrif ba xaw ma ca dara waaw ah. <laughs> mu ne najeex najeex Aboubacar yonent bi ni gis Aboubacar ne ko yaa Aboubacar samiata samiata al arfana dégg nga dégg nga dégg nga arfan ja mu ne ko mu ne ko ki ñuy indi ndox na jax la tudd an jaxta yaa Ababakar wa ana an jaxtu mucc nga mucc naa ndax ki ñuy jox ndox na jax la tudd te noo mucc ñu tax a bàyyi ko Madina i Màkka ñëw Madina tabarakallahu kon nag may lii sama digganteeg Habib lii arfan la ju neex ci man maa ngi ko bëggoon a gis sax kon sama sa maa ngi koy teg ci sa loxo nga yóddil ma ko xale yi yàlla na ngeen egg yàlla na ngeen egg dëkk bii ngeen ñëw mooy dëkku Tiwaawan dëkku Seydil Haaji Malick Si euh, di dëkku xam-xam di dëkku leer di dëkku wilaaya di dëkku euh, euh, xaqiqa di dëkku sharia nag Maodo jëfewul sharia dong bàyyi fa xaqiqa waaw jëlul xaqiqa it bàyyi sharia bu jëlul xaqiqa bàyyi sharia nun ñëpp ay dof la ñuy doon ndax nitu xaqiqa daa mën a dofal dofloo nit waaye daa jëfandikoo sharia ba ba yar nit ñi sharia doolu leen woon xaqiqa xam ne kenn dootu ci loru kenn dootu ci def koy Seydi Hadji Malick loolu la mag doomam yi yore kenn desi euh, rawat na nag moom Alaaji Abdu mi fi toog 40 ans serofot waaw waaw yal na yàlla dolli leeram waaw ba muy dem mu jox ko sëñ Mansour mi ngeen siyaar si siyaare ngeen ñëpp waaye fu neen yàlla na ngeen fa am barke la fay leer yàlla na ngeen ko tondi ba doyal ci barke Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick moom sëñ Allah sëñ Alaaji Mansour sëñ Alaaji Abdou dafa déggoon sëñ Mansour bi mu taalifee taalifee boobu xalifatu cheikhi wal muxtaariya fi di mbër si yaay fajal diina ay daanam ñëpp la war xam nga la xaafiya bi mu ñëw jox ko Serigne Babacar Serigne Babacar xool ko ba mu àgg mun wo len ma Mamadou Mansour mi seigne Mansour mi mu ñew mu ni ko déggal ci wax ju rafet ji ma sa bay wax déggal rek li ma sa bay Abdou wax seigne Mansour xol ko ba pare ni ko ah papa khassida bi rafet na rafet na mu ni ko tontul mako ci la ko seigne Mansour boba courant amul seigne Mansour boobu mi ngi tolli en l'âge de 22 ans courant amul Tiwaawan ne dama jënd jënd ji eh, sondil ci bitigu madame Ari moy bitigu bi nek fi ci angal bi Cheikh eh, Ndaw fofu la jënd ji ñëw dem ci néegam taal sondeel bi xool wayu ba mu àgg mu daal koy tontu ni ko jësaaka rabbuka ya abdal asis abar xam nga xalifatu cheikhi wal muxtaari yaa fi di mbër mu ni ko jasaaka rabbuka ya abdal asis abar ci way wu rëy wi nga woy sëriñ bu mag bi di mbër xad jitanaa bi qasidatin mubayinatin melaw xalifatu mbay yuy xeeb na taaru durar لا فد فوكا ولا شلت يداك ولا قامت عداك تسي وخي نغا وقت سعر بووي واق نتب سميم كريم ناصح ورع كسب سري ملو يملو سنت لا وار بووي واق ا آه ني جوكو سيغ بابا مو جوكو باي سيغ بابا مو يير كو واو كاي demal jox ko sa baay Abdou bu ëllëgee bu dul moom di yow walla jëf du bëggee dem la ni busraakumu man sóoru xadu wuliitu mu def li du asaar <laughs> jërëjëf ñang <laughs> nga baal ma nag wax ji bari na eh, Baye Maodo yow nag eh, duñ duñ la bàyyi nag xale yi nag sa série moom faw nga bégal leen ci ci ci Maodo raw ci Seydil Hadji Malick waaw ah, bu doon ñaari bëy rek nga bégal leen ci waaw man sëriñ Abdou yow de loo ma sant ma def waaye man damaa bëgg a bàyyi woy ah, barki dem nañ maa yebal benn gàmm ma gàmm ko firi ko hmm. ñun ma yow woy rek nañ defal moom gàmmat man leen gàmm yi woy yi day léeg-léeg day gën a woyof ndax gàmmu léeg-léeg sama classe gi dañ ciy wax lu dul dëgg ndax bëgg mu neex rek bëgg xisa neex na tax ñu dugal ci loo xam ne du am moo tax ma foofu yem ci woy yi di ci am dépasse te sëñ Mansour mënoon bu ci passé juróom ñetti minutes lu ci waaye di am di nga ko ci am walaay am naa ko ci ba ca mbubb mu rafet mag ma joxoon tabaarakallah <laughs> Al-Haju Malik Haba'u Malik Malam yu Malik Lil Kuramai Kendusen Mam Maudo Ndeysan Mangi Figis Kusen Tu Baji Baji Bo Kotope Mudem Kasamas Abdul Aziz Baji Sherif Yunus Bo Bangir Tia Kasamas Fala Dek Fof Nyai Mbokam ndaysan sidaji malik da tok ba yag mu ne dafa bëgg yey gura ci gura gi kat ka sama ñu koy jënde bo mag ñe baax bu ñu defar rek jaamal reew ñi ne gor gi makta sal mo jog jëndi ji gura ga ñi ni rawaan nga ma dem jëndi ji gura ga ca Casamance ba mu di xol ganyang ngi tok ca mawdo ko ko kenn ni ko demal na ma ko jaay mu ñew ba yam ci di wër di wër ba yam ci gor gi yunus seen mam Yunus ay dara ca bangeer mu ñew mu ne ko gura laa bëgg yoonus xam na ni mawdo ko yoni ndax nitu yalla yi dañuy gisante mu daal ne ko naat lo bëgg mu ne ko nangam mu peeseel ko ba muy dem mu xass ko gor ndaw li dem ba taxaw na le mu ne ko eh kaay dikkaatal mu mune ko ana gura gi mala la jaayoon mu ko mu ko indil mu indi mu tekki ko mu tekki takk bi bi mu ko tekke mu jeex ko ba gis ca benn ndoomas gura bu ndaw mu gis ko bu mu gisee ndom sa mu dal kay ni wa la mat yëy ci ba mu dess mu ko ci bir ke bi ni man xat man akala ma almaxfoor ku lekk ànd ak ku nu jéggal am nga njéggalal am nga la sa passé pour dem àjjana ki ndaw li xamu ci dara mu ñëw fekk Seydi Hadji Malick fii di jàngale ak temps bi mu am ba mu ñëwee fekk ko mu toog ci njàngale ba maag sama turoon si gët ni ko ah dem nga Casamance ba ñëw indi góor gi mu ne ko ah, mu ne ko indil mu jox ko góor gi mu takki mu jeex ba gis daggit wi daal di àggale ko moom itam Seydi Hadji ni man akala ma al maxfur xufira kooku Yunus doomam yi mu am yëpp Seydi Hadji la leen jox ca musu ñoo gisee gisante yaa xanaa ci ci kooku nag moom la mag seen góor gii ni ma ma demal leen ci ñetti bayit alhaaju malik man haaju malik mawdo yu biinu salik yow ma kenn du seen maam mawdo alhaaju malik haba u malik maalam yu maalik lil kuramaay kenn du seen maam Maodo alxaaju maalik man xaaju maalik Maodo yu biinu saalik ma ni daayi kookoy sama mooy seen maam mooy maami Habib si bu maam Alaaji Abda si si yàlla na gën a gudd fan baayam zakam nu sumaan alkarimul murtada sa maam Maodo شيق المسائق المنبول عرفاني ذاك ابن سمان الذي قد جاءنا سن ممون إن نور الهدى من أحمد العدناني ذاك ابن سمان الذي أبدى لنا مونو اندي خير الديانة باني الاركاني هو مالك متمالك من مالك بما مالك هو مالك الفريق لنبقون أمنا أمنا نسمى موضو نلنا المنى نلنا المنى نلنا المنى لنا الوسيلة وقا فارتقي موضو يننتبه moo doonu Seexana Tijaani moo doonu Umar Fuuti Taal moo tax sëti Umar Fuuti la ñoo jóge fii léegi jaar ne di bañ a pétir bi ñu moo doonu Umar Fuuti Taal moo tax sëñ Babacar ni ko warisal imaama minal imaami bi kulli ma amaral imaamu minal imaamil كم مدلج ومدلج ومعرس قاد يروع وآسق متسرق ولقد قدى بين سياقيه يو يو يو مقامه سين مام موضوع يعلو على الجوساء والدبران أبي يالنا قد فن آه الفاتي yàlla na nga àgg fa mag ñàggoon sa barke Baye ak sa barke maam ñu ngi leen di nuyu tubaarakalaaw ça c'est bien fin <laughs> waaw mi ngi noonu ça bien fin Baye Maodo it yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na la fi yàlla bàyyi nga yàgg ñu bégal ci mag ñi yàgg ñu bégal ci seyduna Muhammad yow tabaarakallaahu macha allah tiitaru xadaraka Cheikh El Hadji Malick nga kon nag yàlla na la fi yàlla bàyyi Eh, daanaka way dañ daf koy laqatoo rek waaye xam-xam bi moom tabaarakallaahu moo moo gën a bari way yi kon nag yàlla na yàlla yàggal la fi yéen la ñuy xoole mag ñi fa tabaarakallaahu bég nañu yàlla nga dem ba sa sër yi di la di la di la awante biyee màkka ci barke Seydina Ahmed sëñ Habib it kontaan na fa tabaarakallaahu gis nañ taxawaay bi moom it barki démb rek mi ngi seede digganteem ak Serigne Mansour si borom daara yi ci alaaqa bi leen yàlla boole loon ak tabaarakala taxaw bi nga xam ne sëñ Mansour daan na ko ko taxaw ci lépp loo xam ne rek yitteem la barki dem rek mi ñu koy nettali ci Aynou Mady kon nag yal na yàlla yokk leeru sëñ Mansour yàlla xam-xam bi ko yàlla mayoon ak fasaxa bi ko yàlla mayoon ak fëhmu bi ko yàlla mayoon ak fatx bi ko yàlla mayoon yàlla nañu ko yàlla bul defal ak njaboot sëtam yi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam alaaji Mor lii leen ay Aynu Maadi TV indiloon te daal bis bi moom xam naa Mor tey bés bi dafa alaa daw mi ni ko sëñ Mansour daan waxee fa tabaarakallahu yàlla nañu ko jëriñoo ñu ñëpp yàlla na ko réew mi jariñoo ñaan it tabaarakallah xalifa sëñ Babacar si Mansour ak ay rakkam waaye ñaan xalifa sëñ Mansour borom daari mu sëriñ Cheikh Ahmed si منصور يالنك في الله باي مول مايكو وير اك اي ركام ييب بي مصطفى صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته